jërë ngeen jëf mbokk internet yi bàyyi xel info 7 tv ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen urgent fa li nga xam ne muy diwaanu Matam la dem marché bu Ourossogui moom mooy tàkk jamono yi lay tàkk jëppët lay def ginnaaw ba nga xam ne xam ngeen ne tey jile la ñuy xam ne mooy feetu tabaski ñu baree ci commerçant yi dañoo dem julli ji waaye jamono yii moom actuellement marché ba moom mooy tàkk jëppët dañuy jëli suñu naataango ba ñu fa teewal Omar Dieng Bamba en direct Omar salaamaaleykum Omar Dieng Bamba yaa nga en direct di mhm. nuyu képp koo xamante ni ne yaa ngi topp groupement bi di Info uh-huh. ñu ngi leen nii di siyaar a baax dina uh-huh. uh-huh. Omar uh, ak lakk bu méttee métt nag moom moo fi am ginnaaw bi na ba tegal ay minutes ci la lakk gi commencé mu mel ni place fi mu nekk nii ñuy wax ak yow na ba jeex tàkk tàkk tàkk tàkk sapeur pompier existe ni ñëw na ci heure bi war a ñu waaye lakk gi jéggi na maanaam Euh, tàkk tàkk li jéggi na day ba jéggi day boo xamante ne si ne mi ngi fay waaye ba tey nii ñuy jow ak yow mhm. lakk gi fayagut comme ni nga xamante ne si ne ñoom maam noonu lañ ko bëggee mhm. euh, ba tax na sax ñoom indi nañ seen ñaari oto ngir amal li nga xamante ne si mooy faydu lakk gi mhm. nit ñi di indi seen ndox ngir faydu lakk gi waaye ba tey nii ñuy wax ak yéen lakk gi mun ko fay mhm. li maanaam li li tax mun ko fay nag mooy marché bu wërësoo ji maanaam fépp boo jaar ci bépp côté boo jaar mhm. oto sapeur pompier du am fo mën a jaar mhm. loolu nag faaw ñi nga xamante ni ñooy commerçant yi bu bu lii lépp jàllee war war nañ ko waxtaanwaat ndax El Hadj Mor Diouf saa ngay jàll jël naa la bii ci benn lakk boo xamante ni amoon na fii ci marché wërësoo gi te maanaam heure bii la woon ci même heure mhm. tey jii dafa gën a métti ndax lépp li ko waral mooy ñi nga xamante ne si ñooy commerçant yi nekk ci marché Brosso bi mhm. ñu bëree bëri tëj nañ place ba dem julli ji foofu nga xamante ne si ni mooy seen i dëkk mhm. te tey jii loo xamante ne si moom lañ fa bàyyi woon loolu nag bokk na ci li nga xamante si ne képp koo xamante ne si ne yeewoo nga fii ci Brosso tey jii am nga loola ci naqari lool ba tax na daal xam naa ne lakk gi mi ngi mi ngi lakk sapeur pompier mi kon ngay fay waaye ba tey nii ñuy wax ak yéen amagun li nga xamante ni si ni moom lañ bëgg ñi nga xamante ni si ni mooy lakk gi fay spécial loolu amagun mhm. uh-huh. Omar uh, kon daal mën nañ jàpp ni ay cantines yu baree bare ak ay magasin jamono yi uh, seeni borom moom bu ñu ñëwee ab doom lañ fay fekk Omar wallahi nii may waxe ak am na magasin yoo xamante ni si ni nii laa jàkkaarloo ak ñoom ñuy lakk ba jeex tàkk tàkk tàkk mhm. te sapeur pompier mi ci biir marché bi dafay gi te sapeur pompier mi ngi fay fee waaye fii nga laaj. ci mhm. ñaari oto mu taxaw ci mu taxaw. mais oto yi amuñu benn fu ñu jaar ci li wër marché bi ngir dugg fay laajte ji loolu nag boo ko gisee moor mhm. mooy li am ci marché yëpp rek. Mhm. il faut que yi ñu organiser ko ba ak lakk amee wala yu demee nii. sapeur pompier bi ñëwee oto bi day dugg directement ci biir marché bi fay fa lakk di amee génn dem yoonam. mais loolu su lakk gi day continuer di am rek. il faut que nag lii ñu nekk ci marché yi jógaat waxtaanee ko ba nga xamante ne si ne bu ëllëgee dootu maanaam dootuñu daal ndax lii métti na trop daal métti na trop. Mm-hmm. mu mel ni yaatu na ndax nemmeeku nañ ko ci marché Sénégal presque mën nañ ni yëpp noonu la demee sapeur pompier saa su nekk rek day am li nga xam ne moom mooy ay jafe-jafe ngir bu lakk amee ci biir marché bi mu nekk nag jafe-jafe yoo xam ne chaque jour ñuy alerter ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi waaye mel na ni daal joxuñu nopp yu baax Omar Dieng Bamba. Mhm. waaw lool noonu lay demee ndax limenté bu réseau bi loolu sax maire bi di Moussa Bocar Thiam mhm. moom waxtaan nañu ko ak commerçant yi waaye commerçant yi ba tey waxaguñ ci lenn lu leer mhm. waaye jàpp naa ne lakk gi dana tax marché bu réseau bi ñu organisé waat ko ndax marché bu réseau bi fépp boo jaar ci bépp boor li wër marché yi amul fenn oto mën a jaar dugg waaw moo gis fo fo am marché boo boo oto oto bu ndaw sax mënut a jaar fenn dugg ci biir marché yi mais lool est-ce que marché bu na non hmm. du maa ko bu fekkoon bu lii jàllee. Hmm. il ñu waxtaanee waat ko. suñ bëggee waxante dëgg am marche day tegu bu leer. Hmm. ak lakk bu amee bu sapeur pompier bi ñëwee mën a taal oto dugg ba biir lakk bi daanee mu daal di koy fay. mais wax ak yow marche baa ngi tàkk sapeur pompier ngi taxaw si ñaari oto di fay may wax ak yow nii marche bu wër soo gi nii kon di lakk. Omar ndax meer bi ñëw na wala nemmeeku nga foofu ay kilifa yoo xam ne ñëw nañ. waaw kii daal nañ fi ki nga xamante ne si moo di sapeurs-pompiers hmm. gendarmerie bu wër asooge eh, it maanaam teew na fi hmm. ak mbooloo mi nga xamante ni si ne ñëpp hmm. seen événement moom dafa jeex tàkk tey jii bépp bépp foo maanaam li wër marché bi foo làmb mbooloo rek maanaam day danga koy daj ndax jaaxle unu jaaxle ak bis bi mu tombee li nga xamante ne si ne ñëpp ñuy doon ci kenn ku nekk am programme boo war a def yi programme yooyu yëpp maanaam amul ndax marché bu wër asoogi di di lakk kenn ku nekk boo ci amul mbokk muy lakkale am nga ci yow place boo xamante ne si ne ma ngay lakk hmm. loolu nag mënut a am ba pare nit ñi di continuer di continuer seen événement comme ni nga xamante ne si ne noonu lañ ko daan amale hmm. ba tax na daal bépp bépp bépp événement boo xamante ni bépp yëngu-yëngu boo xamante ne si ne tey jii waroon nañ ko amal fii ci war a sóodi loolu moom dañ maanaam day dakk ndax lii moom kenn mënu koo euh, sëndaale ci ab lal wala nga koy gundaandaat maanaam di tëdd te wax dëgg yàlla lii mett na torop torop Mor Diouf ah. kon Omar xam naa dañ lay garder rek ci kanam incha allah ñu jokkoo waat ba xam fan la yëf toll Omar Dieng Bamba. waaw jërëjëf ci doon jokkoon euh, euh, diwaanu Ouro Sogui Omar Dieng Bamba la ngir euh, rajo télévision bu Info 7. jërë ngeen jëf. cant na ko en direct la woon foofu la ci diwaanu maatam marché bu Ouro Sogui moom mooy tàkk actuellement ni la en direct lañ ko doon am ci Info 7 TV kon ñu ngi koy jaajëfal moom Omar xam naa dinañ ci ñëwaat incha allah. wii leen di ànd ak ñun ci Info 7 TV di abonné te bës cloche notification bi lépp lu ñu leen wàcceel ngeen teel cee jot takk ndeeru askan wi ñoo leen di topp ci àdduna wërngal këpp di leen gëstul ay xibaar di ko saytu ba mu leer di leen ko jot